Salam alaikum, salam alaikum, alaikum alaikum. Watanaf. Aziz Abdul Aziz Aziz nuyu di nuyu sama ñaari préfet yi Ousmane Sané ak euh, monsieur Souleymane Touré maa leen di nuyu di l'adjoint Ndiaye honorable député madame Fatmata Dabo madame Aydara di madame la conseillère spéciale du président de la république madame Mouskeba Sane, du nuyu monsieur Ibrahim Gomis le maire ancien maire de Tanaf sama grand les chefs de service ici présents le cantonnement militaire les autres services l'ICP du nuyu di dalal fi di dalal jam ci Tanaf suñu dëkk dëkk rek fi am te it imam koy ci français c'est une cérémonie officielle où le représentant de l'État va lancer un message au nom du chef de l'État et de l'ensemble des ministres, au nom du gouvernement bien sûr. Imam, nous sommes français comme nous sank. Vous êtes le berger. Nous sommes le troupeau. Madame, yaay sàmmkat Sibir imam vous avez une responsabilité la responsabilité de gérer votre troupeau la responsabilité de guider sur le bon chemin le troupeau puisque nous sommes ce troupeau imam nous avions aussi notre responsabilité pour nous croyants c'est le, respect des commandements. Pour un musulman, on dit le respect des commandements de la charia, de la sunna et des comportements que tout croyant doit avoir. Pour le chrétien que je suis, on dit le respect des dix commandements de Dieu. Nous avions cette obligation. Et tout cela, imam, jam nous avons le devoir de prêcher la bonne foi. Nous avons le devoir de semer les graines de la paix dans ce Sénégal d'aujourd'hui. Je pense que, préfet, à Tanaf, nous sommes l'exemple de la cohabitation. Nous sommes l'exemple, la manifestation pure de la solidarité. Et nous aurions souhaité que cette entente qui existe à Tanaf, que ça puisse au moins s'étendre sur l'ensemble du territoire national. imam nous nous. ñu ñaanal Wa de bi surtout de Tanaf pour que dëkk bi am jàmm man de ak fi mo munta nek ci aduna jam rek lay sax mom rek lay ñaan bo amé jam, yene sa jam, jam war nga ko mëna yene ci sa morom té baña def lo xamanteni tay dina yakal sa morom dañu wara delu suñu xel ci yalla delu suñu xel ci yalla surtout dara buñu dara buñu yakal di ñaan yàlla bés bu nekk li ma am yàlla na sama moroom am ko wala mu am lu ko raw loolu ñu soxloo fi tanaf imaam ngeen dolli ci ñaan xam nañ ni yenn ngi ci ñaan yi bés bu nekk gën leen ko yokk lépp lu ñu sumb ci dëkk bi yàlla na sotti li nga xamante ni aussi yéene la ku nekk yéene boo am Je na mu message jàmm la pour souhaiter la bienvenue à tout le monde à tous les pèlerins hein, puisque nous sommes là pour commémorer la naissance du prophète vendre le prophète louer et le glorifier Donc rendons grâce à Dieu. Il nous avait permis quand même d'être là l'année passée. Aujourd'hui, nous sommes là et implorons le bon Dieu que nous puissions assister à plusieurs autres célébrations pareilles et qu'on puisse l'assister aussi dans la paix et une très bonne santé. Voilà le message que vous devez lancer à tout le monde. Monsieur le maire, nous Djam, Goudi, Djam. Merci, monsieur le maire. أيها المؤمنون والمؤمنات المسلمين والمسلمات المستمعين الكرام أسلمكم بتهية الإسلام وأقول لكم السلام من الله عليكم ورحمته وبركاته آه الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Eh, nga ala tento man so min ta lafta min na wala kakke ma lafi min na wo bu kakke nabbeŋo jaŋ o diyata ala le naman diyaye no ate kela a ya tara diyatantoli a ye ke nga dani fo asike anatan makoye a keta wato ala na duwalu jaabi le jaade fana alma alim be niyo siyama kayra kono o fana e ke ayen be tar kende a kono minude sasarin kono alma alay sujjata kere ala sa sa siyata bare alma alay mulu be sujjata kere ala minul be halar linjan jata kere ala e sambanan minul man nano jata kere a baliya o yowlu tunde so kono alawo maari jaari nolu fanal be ma be ja to adama din duwa damma e wala soto

bara wilo man dia ala ala wilda willa wakati wala ala ma halin nalu beki sawoma ala kano kenal be do la momo kamin do fon ye ya to ani jata kreya al modila nalu be la e tabarakallahu kamolu konton ko monsieur le maire yafa nyamin ay bele konton to be nabe mabe rin jat man sakundan ko lumil be nyaton ala wolum sanete ana mo nyola ni milbe dendin kola aw la konton do le nga umuy mfana linge sayin kan konton ani misil mo fefe na be halar linjang ani mo wo mo nana ta ma be ta jang hanna aya tar na dina kote mawlu min yalon ni be be den din alala mi mo chrétien lo tebe ma be linjang ni be le kanyanta alato la ta alala nyami la ta alala wala nyama nka barol milka diyat fo si kana parce que de nutel be yalon ko jahannama sortale ko tal fer nga lon ko aljana sortale ko tal fer nitul be parce que be den din alala to sayentul kabor nyamin purun kana ta dimbato ifanal ka boru nyama pur kan ta dimbato nka lapi nyamin bulu nga aljanna soto ifanal ka wala nyama poisi aljanna soto oto ndelle be tadula kilo moluti ngolu fanal kontong, ila nyaton ko ko ya eh, superfe afan science a bolo man diama bak wala na mamma be na ma be tan non dombi afana be kuma solla be min fala fatabarakallah khairu min ali afo ko min mero min fo nyimbe kunta khairu lo kono eh ngalon kañum kawamum fo eh, sani ñoom sani xam naa dafay xaw dafay xaw jàll xam naa ni ñi fi toog ñooñu ay olof lañu dëgguñu lu ñu lakk ni léeg tam ñu ci tuuti ci baax daal yàlla ñoo bokk mbir mi ñi nga xam ne daal ñu ngi fii ci teewaay bi fii ñu ngi leen nuyoo bu baax a baax a baax ñi nga xam ne yéen a nekk ci ci wàllu kaaraange bi nga xam ne daal mooy armée bi ak gendarmerie bi ak police ak ñu ci aju yëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax a baax baax seen teewaay bi xam naa ni wax ju bëri eh, liñ koy waxee daal ci soose lañ koy baaxoo di kii waaye léeg-léeg ñu cop ci tuuti nag di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala kenn ko nekk li nga mébét li nga am soxla ba nga xam ne yaa ngi koy mébét sa diggante ak borom bi yàlla xam na ko yàlla na ko yàlla defal jaay rasulullah mu sotti لجنة كوي سنجر يلا نقول يلا في جاي رسول الله ما شاء الله كيرو من ميرو يافو وكيرو دم من بيجا بولا نيندي على بول الدنيا مي ابن مول كمان ده يالي تر بين دين على تنكون بكيرين بنين تنكون تكيرين وبكا كده جمان دول تمي تنو مو بكا ميرا وتو كيرو المعلي وصبت مومن ناتجان ناتكيرو الله alamantul kayra kono jang alen janjande kayra kono momo bita inen kayroyta alama ala la noon lan tedi yamu jampandira bayri ko cérémonie officiel wo omu toñaati womu tuwabo kawnete adum wala mu toñaati banko katal marli man sale banko man santaw alfal ko kana sije to ntollo man ka alfal ala wolbe ko banko man santaw kana siije woto ni di adam man ka to momo min diate kawle bari banko katal marli man sale wo man sanin adbe ku kela sato ta diya taye A akka fotanima je nanata albe atele bulala a yeddante ali nto lefta min nan so fowna ele bar bitum o yijel bitum kuma kawma fele Kuma kumoñima be sous préfet talo bar bitum ba na min e na nte facile ola dañin gamo kayile ko karfe ma si fero be ke ya futandiñi dolu futata deme a fana ye tarawoto na be kela lummin sénégal be ya lon ko ɓi tanafa bi gamo kelle o ɗuno o diyatelle serunga faile nyinam pala ba hanna ma ka han jar fana ba fa da eh, ko tabarakallahu ndem ko mo kanyen de wonto ndol tamu don tan laka taw be nyato o banke janti yo nabe o nyama inshallah gattal wax jere su ko defé eh, tank paré ñu delu la kaddu ya ko mom wa kaddu gi mom lepp ya ko mom ma sha Allah wa kay jere jef abar ba famu yem kenen ñëw jël ko continuer ko té num koy continuer mu koy continuer ci jamm salam waaye toujours dama leen di wax maa fi nekkoon nekkatuma fi bokkuma ci loolu man duma ko nangu te bëgg naa kenn ku nekk ñi fi nekkoon démb ba barki démb tamit te nekkatuñu fii ci wàllu liggéey bi tamit nañu xam ne dëkk bi ñoo ko bokk ñoo ko bokk ci xalaat bu rafet ñoo ko bokk ci doxalin ñi fi nekk war nañu yaatal waaye ñi fi nekkoon démb aussi bu ñu leen yaatalee aussi war nañoo wuy si parce que loolu mooy wax ji dëkk bi ñun ñëpp a ko moom léonce dama naan fépp taana fois foo mënta nekk moo xam responsable politique moo xam opérateur économique moo xam sa place ngi ci développement commune bi loolu dama koy dégg mu koy wax souvent donc loolu wax dëgg yàlla yaatal la imaam bu loolu weesoo euh, dëkk bi Léonce jaar na ci le maire te loolu yéen am ngeen ci wàll wu rëy a rëy rëy gannaaw bi état di jéem a def la mu mën ñaan mooy fetal bi nga xamante ne bu nee tëll rek day daldi am loolu motax tax nañ que ci bu a ba ci bi ci bu mu tollu ni tay ay mama la rek day nañ ñaan suñu borom mu ak parce que situation yu mel amul vainqueur amul vaincu c'est le pays qui perd ou c'est le pays qui gagne donc nañ ñepp gagner réew mi ci situation yi ñu tollu Si ku ne rayante bu amee yàq alal bu amee maa si gañe waxoo dëgg ñun ñëpp ay perte kon nañu góorgóorlu rek ñu dox jàmm wax jàmm ci réew mi réew mi soxla na dal pour liggéey bi mën a am teewul nag teewul nag kenn ku nekk sañ ngaa wax ne lii laa gëm sañ ngaa wax ne kii laa àndal kooku sañ nga ko waaye nañu moytu sànq maa ngi xool ay image sama yaram daw image yi ma gis gis naa ci ay xale yoo xam ne xamuñu sax luy wote tollooguñu sax fu ñuy wote te en général c'est eux les victimes bu ñu déggee euh, diw wala bërëb sàngam am na nu ñuy rey ay xale yu ndaw waay waay waay ñun kilifa yi ñun borom kër yi nañu sensibiliser xale yi nañ leen téye ci kër yi léeg-léeg nag du yomb pour que téye leen parce que bu ñu génn sa doo ko yëg waaye nañu góorgóorlu ji waxtaan ak ñoom image yu ma gis fii parce que balaa balaa gan gi yegg si fii ñu ngi doon lancé image yooyu ci Facebook ma koy xool ay xale yu ndaw a ndaw a ndaw laa gis am na ñoo xam ne sax ñoo yoroon pancarte bi muy xale yu ndaw a ndaw a ndaw yoo xam ne sax fii ak fii ak 15 ans sax tollooguñu fu ñuy voté tollooguñu sax fu ñuy xamee diw laa àndal wala diw laa dul andal donc nañu góorgóorlu sensibiliser njaboot ji pour ñu xam que ni réew mi ñun ñoo ko bokk. imam boo nee nañu jóg julli yow yaa war a jiitu sa sa njaboot topp si bu boobaa ñun taalibe daañu xam ne ah imaam lu mu woote kon dëgg naa si topp ndax yow yaay suñu référence yaay suñu guide religieux waaye su ma nee wala nit ne xale yi jóg leen dem leen baare yoon bi jël leen pën ngeen taal yàq leen muy station muy leneen ak leneen ngeen yàq ko man de ku ma woo ci loolu damay naan ana nga yow ana sa njaboot ana say soxna bu ñëwee ba taxaw boobaa ma seet ndax dinaa ànd ak yow wala du ma ak yow waaye bu dul loolu woote kese sa njaboot toog si kër gi yow ngay woote loolu man defe naa ne kenn ku nekk am fulla ak fayda war ngaa bañ lànk ba tëdd loolu nag message boobu defe naa ne bëgg naa koo jàlle sama bopp jàllale ko sama njaboot waaye jàllale ko population yëpp jaarale ko ci imam ngeen jàppale ñu ci lool violence amul njëriñ te lu ñu fi gis yëpp dañu naan enquête dina am lii dina am lii dina am depuis Senghor kan moo dégg man dégg déggaguma ko duma xale nag xëy na magaguma noonu waaye tamit duma xale waaye déggaguma fo xam ne nee def nañu enquête ba ñu jàpp ñu defoon loolu ba yoon def li mu war a def ci tàng-tàng bi nii mën nañu wax lu bari moo tax ñun et même bu loolu amoon même bu loolu amoon te bëgg nañu muy am chaque fois mais même bu loolu amoon enquête ba jàpp koo xamante ne moo ko def fajul bakkan taxul bakkan dellu si te ñun xale yi soxla nañ leen parce que ñun jeexal nañu ba pare xalé yi la pour place imam yi pour place monsieur le maire yi pour place député place ministre conseiller place sous-préfet place gouverneur donc fu ñu dañuy tollu nous ci xam-xam dañuy encadrer et les maires donnent les moyens pour que nous yi nekk ci condition yu ñu pour que nous ñu assurer la relève léeg-léeg ma tollu diggante boo xam ne du ma wax fan la damay soxla nit ku jàng pour ma nome ko ci yenn programme yi nga xamante ne ñoom la ñuy dérouler mais damay am jafe-jafe pour nga am koo xam ne soxla nga ko jàng na da ngay am jafe fii si sama arrondissement ñoo xamante ne am nañu niveau ma ne yow yaay président commission révision exceptionnelle wala yow yaay président programme euh, comment dire campagne agricole damay am jafe-jafe yi léeg-léeg waaye nañu bàyyi xale yi ñu jàng donc Imam, am ngeen ci wàll bu rëy ci ñaan waaye tamit ci xutba yi ngeen di def ci jumaa ji yu ngeen di def ci yi parce que gamu aussi am na ñun lu ñuy waxee question d'actualité bu dee wàllu ay xadis ak yooyu bàyyi naa la ko imaam bu dee ay saar bàyyi naa la ko yaa ma ko ci sax waaye ñun léeg-léeg ñi profité ci jotaay yi pour jàllale suñu message boo xamante ne question d'actualité pour lolu wesso imam batay question d'actualité dañuy période recensement général de la population et de l'habitat ñu cinquième recensement Manam dañuy dénombrement Manam dañuy dañuy compter Sénégal ñun lañu programme bobu nak fukki at yu dañ koy Sénégal daf en 2013

question yi nga xamante ne moom lañ leen di laaj parce que réew mi soxla na ko mais dina am ay esprit yoo xam ne wala ay nit yoo xamante ne toujours dañuy jaxase xel yi dañuy naan noo ñuy dugg ci kër yi bu leen recevoir dañuy def fii politique dañuy ñëw pour parrainage parenage bu jotee ñun ñëpp daañu ko xam waaye waxtu wi ñu toll nii ku dugg sa kër yow mi borom kër gi yow mi chef de ménage mu ne soxla naa la lii mooy samay tànk ngeen recevoir ko ñom i tamit tàggat nañ leen tagat bo xamantene ne bu ñuy ñew ci kër gi am melokan bu responsable ci walu cholin ak ci walu nu ñuy waxee lolu yeb nañ leen ci lolu may leen do dugg si kër imam, ak tubey bu wacc ba ci taat genn ci biti lolu imam du la recevoir nga dugg ci kër kilifa mu xam jigen nga sol lu gat séré nga ne da ngay dugg ci kër pour recenser koku borom kër gi du la recevoir te bu la recevoirul yow ya ko tek sa bop loolu ñoom itamit yeb nañ leen si loolu pour que ñi góorlu fu may jeexalee ñu ngi jub hivernage ñu ngi jub nawet te yaakaar naa su ma juumul Sénégal fukk yoo jël ci sénégalais mën naa wax ne juróom-ñett yépp directement ou indirectement ci mbéy mi lañu yaakaar directement moy ñun ñi yor suñu suñu arme suñu suñu suñu ki suñu suñu matériel agricole di dem ci tool yi ñoom ñooy agriculture directement mais amna suñu xamné ñi ngi ba Dakar ñu ngi dundé agriculture moy ñi jaay dugub moy ñi jaay leneen ba ci yenen ak yenen mais tamit consommation ci la bokk donc mën nañu wax né 80 de la population sénégalaise vive de l'agriculture ça veut dire que donc mbéy mi am na solo waaye boo ne mbéy Sénégal neel ndox boo ne mbéy Sénégal neel taw kon nangeen ñaan réew mi taw bu bari set sell sedd guy te barkel loolu aussi ñu ngi lay tàllal suñuy loxo nga ñaanal réew mi loolu ndax bu agriculture bi doxee réew mi dox secteur yëpp dox kon loolu aussi am solo lol te sumay wax période bi xaliss bari na fi parce que agriculture moy di xaliss ak keju bi fum ne ni xaliss bari na fi xeyna eh, xana ni ne len nañu baña yak rek ñu baña yok yak rek di ko di ci jema def ay liggéey yo xam peut-être mën len leen indi kom kom elek ñu baña a dugg ci yak yu bari waye jamono yu ñu tollu ni wax deug yalla xaliss manké wu fi te loolu yépp agriculture bi la donc ngeen ñaanal réew mi ndox boo xamante ne bu sell bu set bu sell sedd guy te mu bañ a def dégâts yu bari mu bañ a def dégâts waaye mu bari ba lépp lu ñuy def ci suuf si mu barkeel lépp lu ñuy def ci suuf si mu mu nekk lu baax xanaa ngeen jeexalee rek ñaanal réew mi ñaanal réew mi yépp ñépp xaj nañ ci ñaan yooyu saayu jamono demee ba toll foo xam ne Sénégal dañuy tiit ñuy naan réew mi tey mu làkk bu kilifa yi wéetee ak yàlla yéen yàlla dafa leen ruus yàlla daf leen ruus te yéen ko liggéey ba du ngeen du ñaan yàlla lu muy lu muy gàntal ñaan leen te su ngeen ñaanee réew mi dina dem kanam jàmm dina fi am kon loolu lu am solo la ma lay wax ne curé bi waroon na bokk ci sama délégation loolu dafa am signification bu rëy bu nekk ci loolu yàlla dafa def yaramam moo xaw a sutante mu woo ma daaw sa heure bi mu ngi foon ak ñun loolu dafay am solo ci tanaf chance bi tanaf yi am nañ ko téye fukki loxo nañu góorgóorlu suñu biir nañu jàppalante yàlla tax nañu muñalante te yàlla tax muy catholique ba muy musulman ba muy murit ba muy tiijaan ba muy xaadir ba ñépp ay doomu aadama lañu nañu dimbalante waaye imaam man danga may ñaanal nag waaw déwén ma ñëw fii en tant que taalibe pas en tant que suuf rek kon maa ngi ziar ñëpp foofu laa yem junj doy na borom xel